mes chouchous d'amour j'espère que vous allez bien Taïnak, man Simona xale fashion xale Choco Beauty Xamni lima andal tay di tey du ay fodé. de jël li du yanjé. nak lépp fi lay xewé ci bir Shopping TV télé achat bu bees bi ñu andi ci bir dëkk bi xam ngeen ni li c'est toute une première waaye nak attention vous voulez Qu'est-ce gis ngeen li du lait de du beurre du fromage léegi na da ngeen may ma produits décortiqué leen ko nag ci moindre détail ndax bu ci nekk ak bu neex bu ci nekk ak odeurum bu particulier bu ci aussi ak utilité hmm, man daal bëgg naa lii xet bu jël leen lii tey moom ay bouche yu amul fenn laa leen andil laaj la ma nu ma ko tuddee ay bouche de luxe gis ngeen ko nii bii nag c'est à base de fraise ànd ak nag trois mèches am waaye bii moom xam naa ma mami da Silva rek laa koy jox boo koy taal taalal ma trois mèches am yépp sa bouche yu di fondre xet bi di gilli bu ko defee monsieur jàpp njaax ngir fëlaale nga xam nga ni monsieur bëggul saxaar da koy sonal ma jalan hmm. na ci sama benen produit bi gis ngeen ko nu mu yànjee nii man dal xamna damay bàyyi li dal gis ngeen ko bi c'est à base de citron man dal lepp lo xamanteni day and ak citron rek dama koy wul ndax xam ngeen ni lepp luy mauvais odeur lepp luy citron fum ko fek da koy xam naa bii dama leen koy jox rek ngeen sandil ma ko nànk ci seen toilette ndax xam ngeen ni ko dugg seen biir toilette di sentir odeur bu neex dina la gën a respecté ndax toilet nawle la te toilet it mooy kër man daal nee naa leen daal dara du doy yee muñ ci yii de ak man rek Xali Fashion ci yeneen level ma paree ci yii naa ni fu muy falaat sax da leen ni jombal nañ leen jaal ci beneen mi ngeen xool boobu fraîcheur ci lii bii xam naa xale choco beauty la koy jox sama genre yi xale fresh girl yi nga xamni dañuy tayal ay boyal man sandi len mako sen couloir rek ndax gis ngeen ko nu yanjé ni c'est à base de menthe te xam ngeen menthe ma len ko présenter ti man lama ci gëna daane moy xamna li ñi tok di ma sama ay produits sofu len de mu bëgg na ngeen composer ma suñu numéro bu neex bi muy double zéro 221 77 699 56 56 ñu livré leen ko nag bu gaaw gaaw gaaw ma jàll nak ci de king jël len ko ni the king la leni di tegal le gis ngeen ko ni mu taro ni jël len sama ay ongle lim ci taro man dal bëgg na li jasmine laa leen tegal de xale yi dox ci yu baax xam nañ ñu ñuy jasmine du leen ko présenté gis ngeen dëkkiñ bii quatre mèches am la àndal bii moom xam naa borom institut de beauté laa ci woo boroom néegu cinquante mètres carrés yi borom néeg yu yaatu yi nga xam ni ci yu baax rek la ñuy dox xam naa ni sama dëkkiñ bii boo ma ko taalalee ak foo munti tool xet bi dalay dal waaye duma ci fàtte nag sama suñu mbokk xeccan yi jël leen ko nii xam nañ da ngeen soxla ay bougie yi seen ay prière te bëgg nañ da ngeen jëlee ñu suñu ay bougie de luxe yi taal ko xet bu neex bi di gilli gëm naa ni loo leen ñaan suñu borom validé ko moom xam naa Eva madame rek laa ci woo xale boobu nga xamante ni ci yu baax rek lay dox gëm naa ni boo ma tàllalee sama bougie de luxe bii <laughs> loo ñaan suñu borom validé te xam naa di sëy bi dina gën a neex waaye li ma ci gën a daaneel ba daaneel mooy jël leen suñu ay couvert suñu ay yi c'est en métal vous après usage ni ngeen koy gis ngeen ko La couvert en métal conserve l'humidité conserver humidité bougie bi di conserver odeur bi senteur <laughs> préféré Je bi bu may de dama koy <laughs> ma White Garden <laughs> gis ngeen ko nii ak a wuyu turam bi moom xam naa dama ci namm benn samedi soir nii rek génn fu pop comme ni ma ko defee nii war a xaar monsieur rek ba mu ñëw ma def sama drap bu weex taal taal sama clim sama White Garden di jolli ci côté bi xam naa boobaa damay def yëfu bandi rek siif yéen a ma gën a xam comme ni ko Vivi bëggee rek ñu tasaare arsenal bi foofu toj gis ngeen ko ni bi nak c'est à base de mangue et d'ananas man daal bu dak sa morom nga ne la ma jall nak sama préféré limoncello jël leen ko ni man tur bi sa daf may danel jël li limoncello <laughs> bi nak c'est à base de citron te yene ma gëna a xam citron ah black cherry bi xam naa bii daal bi est-ce que duma ko booleeg sama white garden bee rek platchel bii c'est à base de cerise rouge te xam ngeen cerise rouge moom man daal man bu xet bu dàq sa morom rek ngeen ne ma bii la jël leen sama fraîche lilax bi boobu rose blanche bii nag c'est à base de rose blanche gis ngeen ko nii ma ci sama pink li lak bi jalen leen pink li lak bi bi nak c'est à base de vanille ak sama rose blanche pour ma leen wax bi scoop man samay peau daal daño yanj waaye nak beau mes chouchous d'amour xamna li sama ay produits enchanté na len waaye xamna dama len koy jox prix cadeau rek ndax gis ngeen ko ni jël len gis ngeen petit modèle yi prix cadeau laa leen koy jox rek ma joxe len kon nak à 15000 francs je dis bien à 15000 francs ndax gis ngeen ko ni ça peut durer de 2 à 3 mois te xolal loy gën di taal rek jàppal ni odeur bi du mësa dem senteur bu neex bi ma la doon wax sank bi may dal sank ba léegi du mësa dem man dal bi baax na ci yeen ma jaar na ci de King man dal de King xamna li ma len ko joxe di gën na a de ndax xam naa dama leen koy jox prix cadeau rek comme ni ma ko defee ci yii rek gis ngeen dëkkiñ bii c'est à vingt mille francs vingt mille francs dong nag te li ma ci gën a neex mooy dafay durer de trois à six de trois à six mois lay durer te ba léegi centre bi dara du ci bouger nee naa leen ak ñun rek waa Shopping TV lu leen andil rek dafa teg tànk waaye ginnaaw nag bi ma leen présenté sama ay produits yu yanj xamna ni dal lima ko tambe di def ak yeen rek dañuy jall nang ci proof à l'appui ndax wedd gis bokkuti ay ci leen ñu gis ngeen ni man dara sané ko sama salon rek jël leen li ay lay la la gis ngeen ko ni ma tal sama bouche de luxe bu doy war bi The King nag laa préféré sama sano wara xaar sama bouche de luxe rek fondre bo woné bopam gilli waye nak li ma conseil ba conseil moy gis nga sama 4 mèches yi ma tal non la bëgg ngeen koy défé ndax laaj li ma tax ngeen baña yaq sen bouche yi bu len ma talal ben bu len ma talal ñaar te bu len ma taalal ñet lu bëgg ngeen koy jekku rek talalen ma 4 mèches yi yëpp man daal mes amours xam naa di fii daal man bëgguma fi sax jóge ndax li may dal daal doy na waar